alaykum lay makta leen di nuyu di len ziar monsieur le ministre monsieur Moustapha badiou nuyu monsieur le ministre monsieur Samba Sy ñu ngi lay nuyu di la jox si monsieur le ministre aussi des transports ñu ngi lay nuyu yow say service len jox bi yalla jox monsieur le ministre au nom du département de kemassa on tenait vraiment à vous remercier par rapport à certains actes yi ngeen teg muy gis nañ ne que bi ñu nekkee député ba tey sol suñu daal bi commission yi jeexee daaw di waxtaan ak ay say direction waxtaan ak direction ñu yor assainissement wax leen coono yi am ci yenn bërëb yi on a vu que des efforts sont en train d'être faits sur la route qui va de la station de Keur vers Auchan et vers Rufisque effort la nañ ci war a gërëm waaye monsieur le ministre dama fi taxawoon daaw wax la ne

tey nag waxoon naa la ko daaw mais tey dañoo jël parole ñun waa Kër Massar jàkkaarloo président Macky Sall moom la ñuy waxal directement ne ko yéene gi mu amoon ci département de Kër Massar ci autopont bi yéene bi agsi na àgg na waaye am na ay jafe-jafe yoo xam ne fa amoon bu njëkk ba li am léegi moo ko ëpp parce que ñun dañoo gëm ne que la la vision était ambitieuse mais le courage restait parce que ñi fa nekkoon nekk ci aile yi ndax mënuñoo dugg ci entrée yi on n'a pas eu le courage de les enlever de là où ils sont pour élargir les routes et ça nous amène beaucoup de problèmes pour accéder à nos maisons dañuy wàcc liggéey toog suñu ay bërëbu liggéey ba ay 22 deux heures vingt trois heures doo ko ñibbi suñu kër pour bañ a jàngonte ak ay ay ay ay ay ay yoo xam ne coono la pour nga dugg sa kër ay embouteillage beneen bi mooy route de Malika des travaux avaient débuté sur la route de Malika nga ñëw ba ci station Malika bi arrêté travaux yi jëm yëmbal noonu et jusqu'à présent man moo fay jógee man y'a trois ans di dem tukki ji ba ma ñëwaatee ba tey dara bougé wu fa te nag Malika dëkku dëkku dëkku laayeen la kër xalif bi

bëgg ñu ne péage beneen côté bi li ñu fa néew doole amuñu moyen fay péage fu ñuy jaar loolu mënul nekk xel nanguwu ko sax dëggal nag suñu coow bëriwul nag waaye nag bii nag boo leen ko defee dinañu jëpp de ndax nag ñu ku bëgg dee di nga yëngatu beneen bi mooy les accidents assurance yi ngeen am pour accident yi monsieur le ministre dafa am ñoo xam ne ay kilifa lañ wala ay ndaw ñoom seen ay liggéey di ci daan seen doole am accident de la route assurance war koo mën a lijjanti entre ñaari assurance mais des gens courent derrière les assureurs pendant deux ans trois ans sans pour autant ñu am li bëgg assurance vous bu da nga faju 7 millions 8 millions Vous la waré fay mom moy évaluer moom am médecin am bu ko évaluer fay la 400 600 maximum 1 million pour la. il est temps qu'on revoie déjà dès biñu wara a fay ñi nga dañu accidenté la prise en charge ñuy accidenté ba pare xool jumtukaay yi lool monsieur le ministre je bëgg avec rek la vision du président Macky Sall qui est un ingénieur avéré Macky Sall nak mënuñoo def leen dul li parce que nak bu né Abdoulaye Wade mooy sa baay war nga mëna a liggéey lu melni mais kuñu né ne Idriss Seck moy sa kilifa di sa mak ba dafa dul dara mu xam la mu xol la ragné la ci bir ay nit né la ciix wol ci ay miram war nga mëna doxalé ni donc jommaluñu jaxluñu nag mu am vision am ambition mais jàpp nañ ne que d'ici 4 mois ou 3 mois on saura suivre les actions qu'elle a démarré et on aura suivre aussi et faire mieux que lui ce qui n'empêche que on reconnaît qu'il a un bilan sur le plan matériel et pour cela, on vous vous et le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue euh,